أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون mbokk yi nga xam ni yéen a ngi déglu xew xew jamono tey nag ñu ñëwaat ak yéen rek ci yi xew ci jamono nga xam ni musta xew wi waa muy dee dee rek muy dëgg parce que dee moo ëpp valeur dund gisee sunu borom subhanahu wa taala bi mu wax ci alquran dee la njëkk cité maanaam dee la njëkk tudd soog a tudd dund suñ borom dafa wax ni alladi xalaqal mawta wal xayaata waaw bind naa dee lu jiitu muy bind dund tey nag moo tax ñu ñëwaata ak ci mbokk moo xam ni jàpp naa ni ñun de mën nañoo wax ci moom tuuti parce que nag xëy na bokku ñoo moom ci wàllu deret bokku ñoo moom sax génération waaye am na lu ñu jota fekke ci ay ci taxawaayam ci diine ji ci taxawaayam ci réew mi ci taxawaayam ci umma bi mooy muy Cheikh Mouhamadul Bamba Ndiaye ñu koy wax oustaz Bamba Ndiaye waaw gannaaw ba ñu ko jaalee réew mi yépp waaw gannaaw ba ñu ko jaalee réew mi yépp Bamba Ndiaye ragal naa ni wax ci moom dina yomb lool lool nit ku ne nag ak li ku ne ak li market marqué ci moom eh, mën naa ni tey man de su ma doon wax ni buñ ma doon laaj lu la marqué ci cheikh maanaam Bamba Ndiaye wala al oustaz Bamba Ndiaye wala al oustaz Mouhamadul Bamba Ndiaye noonu la tudd damay wax ni lima ma marqué ci moom bokk na ci xam-xam bu bënn waaw njàng mu set parce que Bamba Ndiaye dafa bokk ci arabisant yi nga xam ni ni muy làkkee arab noonu lay waxee tubaab te loolu mbokk yi loolu luxus du ko maye luxus du maye loolu loolu aw askan du ko maye loolu njàng mu metti te yàgg moo koy maye Bamba Njaay buy wax tubaab da yaakaar ni moom la jàng boo wax arab nga yaakaar ni moom la jàng Bamba Njaay bokk na ci li ma marqué ci moom mooy daan na bokk ci combat yi waaw combat bu mus a am ci réew mi bokk na ci ñi participer nga bokk ak moom position ak nga bañ a bokk ak moom position parce que ñàkk bu ñàkk bokk position loolu moom cosaan la ci mbir yi loolu du problème yàgg na ci lislaam yàgg na ci àdduna àdduna ñëpp mënuñoo bokk position mënuñoo bokk fu fuñ jëm parce que yàlla mi bind nit ñi moo bind ñi weex ñii ñuul loolu rek liñ ci war a jànge mooy ñëpp mënuñoo bokk fu ñu jëm te Bamba Ndiaye bokkoon na ci ñi daan assumer ay position ci moment yi lu mu difficile difficile waaw waaw bari na tey ñoo xam ni ñu ngi yuuxu di wax démocratie ci réew mi ak liberté d'expression bu ko moomale seen bopp li ci Bamba Ndiaye liggéey liggéeyuñu ko ci waaw mais xam nga sunu système bi ni mu tëddee bu ne nit di nit kii bëgg na diine rek waxuma nitu diine bëgg na diine rek am na bët buñ lay xool mooy yow waroo fee tekki dara waroo fee gérer dara ba gis ngeen ci nguuru Ablaye Wade sax defoon nañ ko ministre conseil des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses loolu Sénégal itam buñ ci juum Sénégal mosul am ministère des affaires religieuses ministère buñ ko waxee mooy ko xam dangay am budget comme ni ko santé amee ni ko intérieur amee Sénégal amul ministère des affaires religieuses ministre conseil la am ab conseiller boo xam ne mooy conseiller président de la république ci wàllu diine te ci réew moo xam ni dañu ni quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ cent pour cent croyant lañ loolu warta am loolu injustice la boo xam ne lu ñu war a dénoncer la Bamba Ndiaye bokkoon na ci ñi daan dénoncer ay injustice ci réew mi waaw bokkoon na tamit ci ñi daan assumer ay position te loolu lu am solo la parce que mbir mi ku ne looy def rek na ko assumer waaw loolu mooy li am solo mais njàngam man bokkoon na ci li ma li ma li ma gën a neex ci moom xam-xamam bu bënd daan nangu di analyser ay mbir waaye xam-xam bi li muy bari bari daf ko xiiroon ci mu bëgg nekk ab africain amuloon complexe ci tubaab Bamba Ndiaye bu daan wax di nga yëg ni kii di wax amul complexe ci der bu weex amuloon complexe ci diinam amuloon complexe ci wane ni taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la loolu man bokk na ci li marke ci oustaz Bamba Ndiaye waaw man am naa chance su bokk ak moom ay plateau yu bari ñuy waxtaan parce que nit bu waxee rek arab day wax ni kan lim toorab ku wax ñu xam yaay kan mais di nga yëg ni kii ngay waxal nit ku libre la ku moom boppam la kooku nag tey moom la réew mi ñàkk muy oustaz Bamba Ndiaye di ancien ministre wala ancien ministre conseiller des affaires religieuses su Ablaye Wade maanaam ci jamono Ablaye Wade ñëpp xamoon ko mu nekkoon koo xam ni ku ko tudd tudd di Lamine Niass parce que Bamba Ndiaye moom Sidi Lamine liñ def yëpp ñoo ko defandoo waaw tey moom la réew mi ñàkk mu nekk boroom xam-xam bu mag ko xam ni teewal na Sénégal fu nekk kon kooku buñ ko ñàkkee il faut ñu def seede yi parce que jullit bu la wanee ginnaaw li nga man ci moom rek mooy seede li nga xam ci moom parce que nit koo fi lumbutu koo fi luññutu gis ci moom loo xam ni naka sudul noonu la waaye jullit bu xasee ba faatu kenn dootu luññutu ay mbiram li ngay luññutu mooy lu baax li parce que doomu aadama nul n'est parfait ku mat sëkk amu fi de wàllu yi sax matuñu yonent yi rek la yàlla wax ne ay maasum lañ parce que doomu aadama arab yi dañuy wax ni summiyal insaanu ala kasrati nisyaanihi nit dañ ko bind ci gaaw a fàtte dee nag dafa nekk loo xam ni yàlla moo bind dund bind dee ndax nit bu la wanee ginnaaw li nga war a jàng ci ci ak demam mooy jàpp ni moom dafa dem jëli maanaam dafa dem jëli wàllam yow sa wàll ngi ñëw sa wàll nag fexeel ba rafetal ko yow sa wàll yow fexeel ba rafetal ko kon Bamba Ndiaye dafa ñëw jiitu waaye ñun ñoo koy fekki yàlla na ko yàlla yërëm mu dajeeg yërmande yàlla ñun ñu fi des it yàlla nañu yàlla dimbali bañ des bi ci ci ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ak sax ci bëgg lislaam ak sax ci bëgg njub ak sax ci ngo ngor parce que loolu lu jafe la ci jamono ji waaw yal nañu yàlla defal bu ñuy faatu fekk ñu nekk ay jullit wala tamutunna illa wa antum muslimun mbokk yi dee kenn mënu ko daw Cheikh Seydi Hadji Malick sunu sëriñ ba wax na ni ca zajrul qulub mu ni araka nasita al mawti wal mawridun fa lil kulli min bahri al nasibu mu ni gis naa la yow yow imam Dramé ngay fàtte fàtte de dee te xamoo ni dee de géej la goo xam ni ñëpp a ciy root waaw fa lil kulli min bahril mamati nasibu mu ni dee xamoo ni rootuwaay la te rootuwaay la boo xam ne ak géej la goo xam ñëpp a ciy root kon dee kenn mënu koo fàtte nit nag mën na koy fàtte fàttelu waaye ñu ngi ñaan daal balay ñëw ci ñun yàlla nañu fekk ci ak njub yàlla nañu yàlla defal mujj gu rafet réew mi ñàkk na koo xam ni ku amoon solo la ci réew mi waaw association islamique yi ñàkk nañ tey umma bi moo ñàkk waxuma tarixa murit waxuma tarixa tijaan mais umma islam bi yëpp ñoo ñàkk mu nekkoon un intellectuel multidimensionnel nekkoon ku yaatu dënn nangoon critique nangu woon di discuter ak ay moroomi doomam ndax xam-xam waaw kon ñu ngi koy jaale réew mi yëpp di ko jaale ñi doon xeex valeur ak moral ñu mel ni ànd sàmm jikko yi xam ni coordinateur mooy Serigne kër Mboup ñu ngi leen koy jaale ñun ñu ñoo ci bokkoon nekk waaw dafa fekk ni am na moment yoo xam ne wax ci dina jafe waaye wax ci mënta ñàkk parce que nit nag mënu amul ludul bu fi jógee li nit ñi xam ci moom ñu wax ko man mii des fois daan naa jël daan na jël ay position duñ bokk xalaat ci dara <laughs> mais bu ngeen waxtaanee da ngay gis ni ki ngay waxal dafa am niveau de dépassement moom li ko intéressé du yow du jëmmam mais dëgg feeñ moo ko intéressé te loolu moo war a intéressé képp kuy borom xam-xam parce que ay nit ñàkk yàgg nañoo bañ a bokk position ci mbir loolu mooy cosaan ci l'islam l'islam boo gisee mu bari ay école loolu moo ko indi mooy ixtilaaful ulama u rahma loolu salafu saalih yëpp ñoo ko wax ni boroom xam-xam yi seen i wuute yërmande la yàlla na dajeeg yërmande yàlla moom Bamba Ndiaye tey réew mi ñàkk na ku mag waaw ñàkk na kili xola ku gëmoon xam-xam ku gëmoon argument ci xam-xam waaw ñàkkoon na tamit malgré xam-xam bi yëpp gëmoon mag ñi la parce que loolu mu ngi commencé di raar bari na fi tey ñu jàng ñëw am yi diplôme di saaga mag ñi te Bamba Ndiaye bokkul ci ñooñu waaw ku gëmoon Cheikh Ahmadou Bamba la man xam naa ci dara parce que yàgg nañ di waxtaan ci ay mbir ku gëmoon ay position la loolu rek mooy li am solo ci dundu nit fexe ba boo faatoo histoire tuddaat la waaw waaw wane ni nit mën ngaa nekk sëriñ waaye mën ngaa nekk politique Bamba Ndiaye wan nañu loolu parce que Bamba Ndiaye sëriñ la sëriñ mooy ku jàng diine xam diine gëm sëriñ di ko doxal du leneen te loolu mu ngi woon ci moom boole ci mu nekkoon ministre yoroon conseil des affaires religieux bay ci waaram kon mën nañu wax ci moom fii ba suba ñu ngi koy ñaanal daal wax ji mu gàtt mu gudd ñu ngi koy jaale réew mi yëpp waaye war nañoo jàng ci moom bañ rek def ko affaire sénégalais nit jóge na mais lan lañ war a jàng ci Bamba ci ay engagement yi mu fi parce que ay Sidi Lamine ness Bamba ndjay ñooñu li wara jang ci ñom loolu moy kenn amul droit baña taxaw kenn amul droit pour baña mom sa bop di wax sa xalaat ci jamono bi lu mu metti metti boy de nga wax li nga gëm loolu la wara jang ci Bamba ndjay parce que amna lu mu gëmon ta daf ko daan wax di assumer coronavirus bi rek bimu duggé ci réew mi bokku na ci ñi ñi ci doon wax donte amna ñom bokku ñu won ak mom position mais assumer na wax lim gëm té loolu c'est important té loolu lañuy xaar ci borom xam-xam kon bëgguma développé ñu ngi koy jaale réew mi yëpp di ko jaale umma islam bi di ko jaale autorité politique yi di ko jaale le pouvoir temporel bi le pouvoir di wax ni ci yàlla la ñu jógee te ci yàlla la ñuy dellu buñ ci dellu yàlla na rafet inna lillahi wa inna ilayhi rajiun in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Ah, 11